laajam bu am solo bi. Ah, jërëjëf oustaz ah, ci leeral bu am solo boobu ci laaju mbokk moomu mbokk mi bitim réew la nekk nee na borom këram dafay dem Màkka ren yàlla na ko jàmm nee na ci jamono yi ñuy weesu dafa defoon umra muy laaj ah, li nga xam ne moom la teraxlaay woon ci bi muy dem umra bi ndax dina mu yóbbaale wat ko aje ko Màkka. alhamdulilah laaj bi am na solo lool te itam ci jamonoom lañ nekk ku aji Màkka armal. Mhm. ñibbi si indi sa armal. Mhm. bu la neexee bay demaat yóbbuwaat ko. Mhm. ku umra ji armal dellu si sa armal bu la neexee ba dem yóbbaat ko ñun bu ñu yàlla ba ñuy dem màkka bu ñu neexee suñu armalu deux mille quinze ñu yóbbaale ko armale ko ba ñu jëndaat bu ñu neexee na ñu dem ba foofa jënd kon yóbbu geeg dem ba foofa jënd yëpp benn la lim armale umra ji woon bu ko neexee yóbbu ko armale ko lim aje woon bu ko neexee yóbbu ko armal ko armal gi moom na weex rek lañ ca taamu mu am lu mu doo am lum sàngoo. wa shukran ci laaj bi am solo bi. Euh, jërëjëf oustaz ci leeral bu am solo boobu ñaareel laaj mu ne it euh, borom këram day def tamaton ndax nee na euh, li muy rendi est ce que mën naa wuutu am tabaski. waaw non seulement mën na ko wuutu waaye ku aj màkk tabaski wóoru la. Mhm.